الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñuy eh, topp ci seen jataay xam na diine ci Tawhid TV ci àllarba ju nekk yéen ci ànd ak seen mbokkum daara Makhtar Sylla tey ñoo ngi toll woon ci jeexal faratay julli yi di tàbbi ci sunna yi sunna julli mooy yi nga xam ne mooy complété waxal naa leen ni leen farata li koy ñag di ko complété di ko protéger mooy sunna su ko defee borom téere bi nee na sunne julli yaa ngi nii muy lim ba ca jëkk mooy al iqamatu mooy liqaam liqaam mooy li ngay def bala ngaa julli liqaam nag bokku ci biir julli gi maanaam bokku ci biir julli gi mooy ak ñàkkam du yàq julli nit ki mën na koo tay ñàkk liqaam te tey julleem dana wér ndax daf kii borom daa boole sunna yi nga xam ne mustahab bala ak sunna yi nga xam ne mu yëpp da koo dajale benn yoon waaye liqaam dafa bokk sunna yi nga xam ne dañ ko sopp ki ko bàyyi te tay ko sax day mën naa ñàkk tiyaaba de yoolu liqaam waaye nag ak julleem ak julleem du yàqu al iqaamatu mooy baat yi ngay wax am na luñ ci boole lanu ci bokkut astaghfirullah min kulli sanbin inna allaha kaana xafurun rahim yooyu yëpp dañ ko cee yokk liqaa mi ngi taam la ci allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala alsolati hayya ala alfalaahi qad qaamati alsolatu mas na wax ñaar yoon mas na wax benn yoon benn yoon bi wér na ñaar yoon wér na qad qaamati alsolatu allahu akbar allahu akbar laa illa la ñuy laqaami waaye allahu akbar laa ko shahada laa xam sax loolu ab julli daa fonk ak jaamu yàlla bu koy def mu teeylu ko wax baat yi ni nga xam ne boo doon composé numéro téléphone loo yàkkamti yàkkamti boo bàyyee benn zéro boo wootee doo jot loo yàkkamti yàkkamti il faut que composé numéro bi baat yooyu ngay wax ci ak julli wala julli baat yi dafa ànd ay leer ay jëmm la baati alquran yi baati ñaani sunna yi yëpp ay jëmm la yu am yi leer baat boo ci manquil xaraf boo ci manquil la nga wóor la la wóor la ngay wax matut te nag nit ki daa war a góorgóorlu ba taxaw ci kanam boroomam ci audience bu tol noonu la muy wax lépp nekk lu mat nekk lu leer ndax ki war a dem sax jàkkaarloog benn kilifa ci kilifa yi àdduna yi wala ci kilifa yi diine yi day bind ab discours bu ko bindee waaye expert ñu topp discours bi topp ko fan la virgule war a am fan war a taxaw point ponctuation yi fan la nangam nangam lu ñu wax virgule ñu xoolal ko bay na xaw say ni entre parenthèses yi lu ñu xoolal ko ko pour bëgg rek bu waxee affaire bi correct ci kanam kilifa gi ngay taxaw ci kanam rabbul alamin ba pare di tabaj tabaji ah la ngay wax doo ko teelu doo xool xool ba wér naa am déet loolu ak sàggane diine dong la loolu ak sàggane diine la nag li mu am mooy diine ab jullit li mu am ci kaw suuf loo xam ne moo koy dimbali fii dimbali ko ëllëg ca kanam boroomam mooy diineem bu ñàkkee diineem lu am du tus bu ñàkkee diineem lu mu mën a am fii la koy bàyyi am ab adduna yi moom fii dong la am lépp lu am nit ki li mu am bu faatoo li muy njëkk ñàkk mooy aw turam aw turam la njëkk a ñàkk ab directeur la ab mu ab saas la ab professeur la ab journaliste la ab sëriñ daara la ab mu ngoog ab ministre la ab président la bu faatoo xam la ñuy wax ana koor bi ñëwagul koor bi ñëwagul la ñuy wax kenn tudd turam dañuy bàyyi turam tur yu amoon sax waxuma turu turu wuñ ko takkalante mais tur yu ko bàyyam tudde woon sax kenn du ko woyati dañ naan ah koor bi agsi gut ñaa koor baa nga ne koor baa nga ne agsi mi ngi ma nga ne ñu naan koor bi ñëw na ñu naan puus ko ne nga xam ne ñi la gën a jege li ñuy bëgg moo jël la wàqe la daal lay suul delluwaat seen yitti ndax da ngay mel la jël nit ku faatu day day lëjël waa kër gi ndax li tax mu ne lëjël mooy dafa nekk lu amatul njariñ dafa nekk bagage bu amatul njariñ moo tax bagage bu amatul njariñ kenn soxla ko donc sa diine kon bu ko foyee kon liqaam gi jàng ko ba man ko te sénégalais yi dañoo ñu bari ci ñoom ñu baal ma ñaar duñ ko jàng nodd ak liqaam duñ ko jàng dañuy juddu rek dégg seen baat yi liqaam ñu daa koy mokkal ñu ci bari dégg ñuy nodd ci jàkka benn paa buy nodd ci jàkka yi xamoo li muy nodd wér na wala wérut nga mokkal nodd gi ci moom bu ci karame nga jeg jëri ñëw jël microphone ko daal di nodd moo tax nodd yi bari yooyu dégg du wér borom du ko jàng te nodd dañ ko war a jàng li xaam dañ ko war a jàng imam boo xam da ngaa yor jàkka nag tey nekk imam bu am fulla da ngay fexe ba say noddkat nga woo leen jàngal leen nodd jàngal leen li xam loolu imam yaa def imam yi ci jàkkee yi ñoo war a jàngale nodd jàngale li xam jàngale fatiha bu dee mën nañ ko ndax léeg da day imam boo xam ne moom ci boppam ak liqaamam fa tabarakallahu ak noddam it mu ngoog faatihaam it la yàlla xam doy na imaam bu mel noon nag mënut a joyanti kenn ndax nit bala nga ko mën a joyanti da koy tane dafa bari imaam yoo xam ne ñu ngay jiite te seenu njiit teguwut ci xam-xam dañoo war a dem jàngi ñoom jànguñu moo tax daanaka mun ñoo liggéey dara ci jàkk de mun ñu faa jubbanti dara te jàkk nag wax dëgg yàlla daa nekk barab jàngukaay barab jubbantee kaay waaye barab gën a dem maanaam sa sa diine di gën a kii daal tabarakallah kon dañ leen di dañuy taxaw foofu ah ba ci beneen jataay incha allah ci jataay yi di ñëw seen eh, jataayu xamle diine bi ngeen di ànd ak seen bokkum daara Makhtar Sylla fii ci eh, Tawhid TV mu yaakaaru askan wi kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.